nekk ci biir ci biir association bi parce que voilà <laughs> euh, en fait bu ñu la expliquer rek liggéey bi di nga comprendre ni euh, ay di ay jafe-jafe yu yu yu tar moo ci nekk yu tar parce que comme j'ai dit euh, enseignant pour mu def benn bénévolat day jafe parce que boo xëyee di liggéey rek ñuy xaar ci am nga ay charge am ay ay borom kër lañu waa ah. mm-hmm. am nañu jabar am nañu ay doom et cetera donc ñooñu il nga am loo jox Euh, li ñuy am as ci école bi mhm. xaajal bay mot bon pour ce de xale yi fële am nañu ONG bi ñu bi ñu jox centre bi moom mooy euh, dafa am une somme boo xam ne chaque euh, année moom lay alloué pour la prise en charge des enfants, des mm. mais euh, difficulté bi gën a tar fu mu toll nii bu ñu jànkonteel mhm. mooy depuis Covid bi ak léegi mhm. Euh, ONG bi dafa am problème moom si boppam. pour pour pour yenn pour financer yenn. yenn charge yi mu yi mu doon jël. donc budget bu mu doon mu doon jox pour change euh, euh, fonctionnement wu centre bi daanaka dañ ko diviser presque par trois parce que ñoom dañuy def ay collecte de de mm-hmm. jaay ko après xaalis bu ñu financé ko si structure yi mais gis ñëpp xam ngeen ni il y quelques années. mouvement gilet jaune yi en France ñëw dafa ñëw yàq seen liggéey lu bëri parce que chaque semaine week-end ñoom la ñu daan def seen vente yi gars yi ñu def ay manifestation mhm. Covid bi ñëw yokku ci ñoom aussi seen doole wàññeeku ak euh, zone sinistrée comme euh, ay ay euh, dëkk yi am ay tsunami ay séisme et cetera ñoom ñu réorienté seen seen seen budget lu ëpp ci zone yooyu noonu. waa UNICEF nag par exemple. bon UNICEF euh, dañ leen di solicité mhm. mais à ma connaissance réagir guñu waaw pourtant am nañ fi Dakar am nañ fi am nañ fi bureau. si si am nañ bureau UNICEF am na fi bureau UNESCO yee enti bëri ñu ngi fii yor ay. déjà ñoom ñëpp sax fii lañ nekk. voilà ñoom ñëpp am nañ fi ay bureau mais c'est très compliqué euh, nga nga nga nga am seen appui. Mhm. bon. Euh, mais est-ce que jaaroon tamit ci ministère. Euh, euh, enfin je sais plus man ma lan laa wax. ministère de la famille de la protection de l'enfance et cetera. la commune par exemple. la commune par exemple yooyu yëpp c'est des structures yoo xam ne dañu di solliciter. Mhm. la commune de Grand-Yoff. man yaa ngi naan UNICEF man pour man UNICEF sax sori na. non mais mais tamit ay moyens lañu. pour des enfants voilà voilà mais ñoom ci réew mi nag ci biir réew mi non parce que en fait lu tax moo wax UNICEF nga ni dafa compliqué moo wax le ministère euh, loolu xam nga la moo tax ma naan ministère du xaw ma sax lan laa parce que. waaw affaire yi changé kii bon xaw ma sax man man lan ban expression en tout cas ministère.